complaisance foncier bi. ñañ ko dénk ñëpp nañ ñëw taxaw. maanaam ca domaine. domaine DGPU yeneen CDC. Eh, euh, DGPU bi jën far ba képp maanaam wàllum foncier képp ku ci laal na ñëw càmbar nga teg wax ni lii fii laa ko dugal ba mu leer nañ keneen. boor ba des ko ak leneen ak ci wàllum xaalis bi. waaw foncier bi euh, tourisme. hôtellerie boobu ba léegi maa ngi naan racine na ma tegal contrat bi. na ko teg na ko teg keneen lépp c'est-à-dire gis nga gis nga quand quand le président Diomaye hmm. institue wala euh, oriente sa politique vers une protection des lanceurs d'alerte am ñu tiit hmm. looy tiit alerte day alerter rek kii yow boo deful dara amoo loo war a tiit hmm. voilà léegi nag kay kay alerter effectivement du da ngay alerter rek ñu jëli ka nga alerter de ah, ah. déedéet du loolu ah. boobu enquête amul ci lanceur d'alerte yi ñu xamee ko noonu nañ ko xamee waaye c'est-à-dire da ngay da <coughs> ñu jël enquêter maintenant ndax li nga wax dëgg la. Ah. les problèmes fonciers dans ce pays la lu jara auditer la de fond en comble. ndax bëri na ci ay scandale ñi ci teg loxo ñana. ok ak lu tax ñu teg ci loxo. Ah. parce que quand Senghor institué la loi sur le domaine national am na lu tax et que réserve foncier yi nga xamante ne dañ koy teg pour les nouvelles générations. Hmm. dafa war a am euh, njëriñ pour les nouvelles générations benn nit jóge fële. ne tungaan lépp toog ci. Hmm. après ñu war a bàyyi noonu mu jàll non. déedéet réew mi dañ ko war a diagnostiquer sans complaisance ce n'est pas pour rien que les Sénégalais ont opté un changement de système pas de régime. ah pas d'alternance mais d'alternative li tax Sénégalais yi opté loolu noonu xam nañ ni seeni potentialité seeni richesse. Hmm. mais da ngay gis ay borom yu doole yu ñëw boof ci waaye au détriment euh, du du du du du du euh, cultivateur sénégalais waaw ah, yooyu noonu yëpp parce que baykat bi pour mu mën a doon dëgg-dëgg un agro business il faut que mu am titre ci suufam pour mën ci recevoir des financements la corruption dans tous ces euh, compartiments de la petite corruption ci ba ca kaw a kaw waaw ah. ah, waaw lay xew ca taliba Sénégal ñëpp di ci teg seen i bët dafa war a dakk te Pa Moussa li war a tax ñu war a yër vingt neuf milliards yi ca Prodac mooy nii projet bi ni ñu ko présenté woon. voilà li mu man personnellement personnellement je disais très bien parce que foofu dafa am euh, détournement d'objectif wala boog réajustement au début du projet c'était au niveau du ministère de l'agriculture. mu am une euh, orientation de promouvoir l'agriculture mais de xoolal jamono boobu noonu kan moo nekkoon ministre de l'agriculture fàttalikul tuuti. Benoît Sambou le mandataire le mandataire du candidat Amadou Ba. tuuti Benoît Sambou jóge ci agriculture dem jeunesse. et que projet a migré. et c'est là où on lui donné une orientation d'emploi des jeunes. Hmm. dañ dem xooli waat projet li man nag dama doon bokkoon ci ñi nga xamante ne dañ gëmoon ne ça c'est un pertinent projet. man dama ko gëmoon ba tey dama ko gëm. après finalement on est à. 14 domaines agricoles communautaires yoo xamante ne. 14 waaye. Euh. Euh, am na yu ñu ci inauguré ba mu commencé fonctionnel am na yuy euh, balbutier am na yuy soox am na moo tax loolu dañ ko war a càmbar bu baax a baax a parce que en fait boo demee fu mel ni Kër Momar Sarr. Hmm. Dagues Kër Momar waaw nga fekk yaa yaa yaa le fleuve qui est à côté ñu am mécanisme buy war a mën a dugal ndox mais ñooñu war nañ leen teg ci condition yoo xam ne mën nañ béy douze mois sur douze ana jeunes yi nga xamante ne ñoom ñoo ci waroon kii au bout du compte au bout du fil à la fin du mandat les jeunes ont pris le chemin de Nicaragua donc échec de l'emploi des jeunes ba ñu jëloo yoonu Nicaragua nga xam ne échec am na ba toogee emploi des jeunes nekk un problème entier de 2012 à 2024 c'est que mm. problème am na. moo tax ma ne la càmbar bi euh, de qui était qui a été bokk na sax ci ñi nga xam ne Jean-Pierre ah kan moo nekkoon le premier voilà de Jean-Pierre à Jimo Soare il faut que ñu il par l'ancien premier justement yooyu foog ñu ministre de la jeunesse naka la doxee mm. je dis bien de Jean-Pierre Senghor à Jimo Soare en passant par Pape Malick Ndour nanu enquêter lépp ci Prodac lépp loolu waru xaar. non non non c'est-à-dire am na yoo xamante ne. Euh, ce n'est ce n'est pas du du du Diomaye. loolu du mbirum président Diomaye président Diomaye il a du pain sur la planche. la pauvreté l'agriculture l'emploi des jeunes la sécurité et cetera. l'agenda diplomatique très bien. il a du pain sur la planche mais là c'est le travail de la justice c'est-à-dire mécanisme yooyu noonu. Ousmane Diagne voilà. justement ak kii euh, ñëpp jox ko respect. <laughs> ci euh, kii wu justice donc kon loolu noonu dafa dañ ko war a installer ci Sénégal ba mu doon une banalité. Hmm. personne ne pense dans les pays scandinaves. Euh, am na ku ñu doon nuyu de par Suède. Danemark ak yeneen. xalaatoo <laughs> président wàcc saa waay ñuy maanaam yii di doon problème quoi. am na benn documentaire bu ma gis président bi dafa wàcc fonction ci suba si mu jël bus di liggéey. voilà c'est-à-dire. Mmh. perception démystifier ko très bi Sénégal war a am ci euh, état ak dirigeant. Mmh. on dit abusivement nguur gi. tout le monde la di c' est pas de mais foog ñoom saa wolof xoolal ñu ban terme moo gën a approprié ci lii nii. du nguur du nguuru. du nguur waaye liggéey la. sacerdoce la charge la li ñëpp bokk lañ la dénk waroo nelaw. l' actuel ministre des maa ngi dégg sax mu ne bi ñu ko ko wooyee ba dénk ko daa doon daw. ah waaw daa daawoon. maa la wax li parce que charge la sas la sas la boo xamante ne buñ la ko joxee maanaam sénégalais bi nelaw huit heures de temps yow da nga ko war a diviser par deux. ñu delluwaat ci almaami Abdoul Xaadir Kan. Ah. séddaleel la cër la. cër boobu nag responsabilité la àndal maanaam loolu noonu en fait foog nga mesurer comme di le président Diomaye ci discours am 3 avril hmm. que ni je mesure le poids de la responsabilité Sénégal yëpp bu ñuy nelaw yow da nga war a ne zëmm taxaw parce que Papa Thion ko doon wax yaayaa ku fi xaaxam jàmm sax yaa ko war a sempil ah, pouvoir comme opposition ku la votel ak ku la votelul hmm. Sénégalais yëpp nga boole jaboote en un certain moment donné régime bee fi jóge loolu lañ mujjul woon a comprendre. te loolu damay faral di wax est-ce que tamit Ousmane Sonko jamono yi mu ree hmm? <laughs> gars yi gëj nañoo gis sourire am boobu. non dëgg la dëgg la waru ko surtout moom nag. Ah. président Diomaye il n'a pas droit à l'échec mais président Diomaye bu amee responsabilité sans xamal ne euh, le premier ministre Ousmane Sonko mille la ci am. xam nga lu hmm. tax. Hmm. moom dañ ko wóolu ñaari yoon. jox ko confiance ne la yow la ñu wóolu pour Sénégal. nga doon candidat nga doon président de la République Sénégal yëpp di ci xeex. moment bu difficile moment yoo xamante ne lëndëm na crise maanaam wax sax da nga koy nattaat nooy waxee balaa ñu laa kii. Ah. gars ñëw ànd ak détermination le peuple sénégalais la jeunesse sénégalaise surtout ànd ak détermination ne Ousmane Sonko yow mi leen woolu ah. benn Ousmane Sonko ñu tooñ ko ba ne ko doo candidat sénégalais yi waat delluwaat confiance ne ko foo joxoñ fa la moo tax ma ne la euh, président Diomaye bu amee 100 comme ça président Sonko am na euh, le premier ministre Sonko am na mil parce que en fait ils n'ont pas droit à l'échec parce que à l'aboutissement de ce projet là hmm. les Sénégalais l'ont payé au prix de leur vie au prix de leur liberté au prix de leur sang ñu bare bare ci Sénégalais kon donc tey jii nii lii bu échecgee hmm. décourager Sénégalais yi ba faw lay doon ba faw hmm. parce que yaakaar bi ñu am moo di toll te yaakaar boobu nag bu tollee nii en fait ils n'ont pas droit à l'échec l'erreur hmm. est humaine mais il faut qu'il soit surhumain parfois. surhumain parfois. <laughs> oui xam nga nit. <laughs> loolu la di que Dieu est mort. Eh, mais non attends nañ ko déggee un peu avec philosophie. il a décrété l' avènement du surhomme. Hmm. l' avènement du sur surhomme boobu noonu maanaam li lay euh, euh, contrôler mi ngi ci yow. li lay encadrer mi ngi ci yow. c' est à dire Dieu comme entité abstraite boo xamante ne. imagination lay doon très bien. mais mais mais moom la koy. delloo la philosophie. Ah, anal xaq boo yeggee ci yoonu. suufiyanke damay dugg ci yeneen très bien léegi nag avènement di suuf am boobu loolu nit ci décrété woon. Hmm. maanaam jë bi ci yow la léegi yaay contrôler sa bopp. day delluwaat ci suñu taarix bul am réew amal looy jomb. parce que li ngay bu fi nekkatul rek nga def lu la neex donc kon ñii nii sas bi ñu leen sas loolu la ils n'ont pas droit à l'erreur ils n'ont pas droit à l'échec parce que l'aboutissement de ce projet là les sénégalais l'ont payé au prix de leur vie près de personnes xamuñ sax ñaata lañ ñu ñàkk seen bakkan ci loolu noonu yëpp donc kon effectivement loolu moom mooy kii te nag sénégalais yi ñun ci suñu système de gouvernance te loolu damay faral di wax. daal congénital la bu ñu hérité depuis Mamadou Dia ay du Dia ak Senghor ñoom ñaar dañoo amoon benn complémentarité le président euh, Kéba Mbaye disait que ni l'un est un tubaab. Mm-hmm. qui pa importer à l'Occident ce qui est bon mais seulement ce qui est bon l'autre très sénégalais qui culture et à notre civilisation ce qui est bon mais seulement ce qui est bon ñoom ñaar constituer une complémentarité et malheureusement début décembre 1982 ils se voilà xar boobu noonu nag. après Senghor après avoir reconstitué notre euh, pays autour de état unitaire centraliser pouvoir yi ci moom jàpp ne pour mu mën a diriger convenablement il faut qu'il le fasse avec les hommes yi nga xamante ne ils lui sont supposés fidèles et non à tous les Sénégalais compétents. Mm. Mm. bi Senghor paree ci loolu Abdou Diouf dafa hérité waat loolu. <laughs> président Wade ñëw hérité waat loolu gis nga digganteem ak Idrissa Seck. Mm. digganteem ak président Macky Sall. président Macky Sall ñëw hérité waat loolu gis ngeen digganteem ak Ousmane Sonko. Mm. basta il faut que ñu constituer Sénégal avec tous les Sénégalais compétents donc l'aboutissement de euh, ce combat-là les trois dernières années. Ouais. ce n'est pas le fruit de Pastef ce n'est pas le combat de Pastef. le premier ministre Ousmane Sonko ci benn allocution dans la foulée de l' affaire Sweet Beauté mosul na ko wax. mu ne ku xalaat ne lii fi xew nii. Pastef la xamoo li xew. Sénégalais yi ñoom ñoo jóg. et que Sénégalais yooyu nag jóg. Sénégalais yooyu ngay rendre service ñoom ñoo la teg ci station boobu kon ku ñu nommé ministre DG PC ak nangam bés boobu yow bul nelaw xamal ne sas bu rëy lay xaar. kon bu nelaw boobu mooy justifier lettre bi. d' abord ci le président. benn la benn ak tey mu ñëw dëggalaat ko moom le surtout l' administration. na tas kay pourquoi insistance boobu noonu. ci administration parce que parce Pa Ousmane ce qui se passe xam nga ko sénégalais yi xam nañ ko. Ah. da ngay dem ci administration ñu fay la weer wu dee nga war a xëy huit heures dix heures ngay xëy teg sa ndékki teg sa kafe taal sa tele wala sa rajo wala dugg kii seetaan ay faits divers wax wax boobu sénégale yi ñi ngi yeew six heures du matin di rang di la xaar. Hmm. te sénégalais yooyu ñoo la fa teg seen alal googu nga fajoo seen alal googu noonu nga fayee ko couverture maladie yépp loo ci am ci alalu sénégalais boobu di rang ci biti la boo paree midi ngay tàmbali.